waaw yow ca waxal bi ngay daw te moom laa lay daane incha allah Mama Lamine le 22 mai. yow Garga 2 bis boo ma caxabalee boobu ngay ñàkk say tànk dootoo bëri. en direct seen affiche point com di wax fan si yëpp nan dem si affiche point com jënd ko ti seetaan nga foofu. le 22 point com lay daw na ko gaa yëpp xaar wasalaam. aca ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar ki jàkkaar loolu xam ngeen ko doomu dàngu moo war a bëre ak Jordan ñoo ngi nii nag yaakaar naa ne semaine moo des ci combat bi ñu ñëw fii 2S pour def seen dernière face à face dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp su ko defee ñu waxtaane combat bi ndax yaakaar naa ne depuis bu mu taxawee ak yaakaar naa ne waxtaanaguñ ci maa ngi lay nuyu bu baax baax di la ziare di la baalu àq ci correct waaw auzu wal yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sangu-sang yi di ñaanul suñu waajur yi laaxu yëpp yàlla yërëm leen te xaar leen àjjana di ko ñaanal aussi képp ku fi waajuram laaxu rek di ñaanal aussi suñu waajur yi nga xam ne ñoo fi des di leen ñaanal gudd fan ak wér ba ñu fekkee suñu njariñ di ko ñaanal aussi képp ku fi waajuram des. Mhm. combat bi mu taxawee léegi presque mu def presque léegi mu def huit mois yaakaar naa ne un an nga nekk nga nekk di waajal benn combat est-ce que demoo woon ba benn moment nga nga nga wàññi nga découragé ci combat bi ne dootul. waa non ñun ñëpp daloon nañ ñëw parce que combat bi moom comme ni ñu ko waxee rek compréhension moo tax ñu ñu woon ko ñu bëre ko quoi parce que. contrat yi am na fu mu yemoon mais comme que aussi am na lum ñu compaloon te aussi axa baaxul te aussi amuñu combat aussi pourquoi pas ñu jël ko rek continuer waaw loolu la rek ah. adversaire bi nga jël xam nga ko bu baax a baax. waaw xam naa ko man du jël ku ma xamul xam naa ko ci lépp. xam nga ko ci lépp gisoo ni na a baax ak adversaire yi nga xam ne moom nga doon bëre. waaw làmb noonu la làmb moom xam nga ñëpp mënuñu tolloo benn catégorie ñun bu ñu bëree dafa am fu ñu bëgg a dem te boo amee foo bëgg a dem il faut nga am yoo xam ne danga koy jël faxas ko. mënul ñàkk ci yoon bi. Eh, mais du tu si dara. amul différence. ndax mos nga bëre adversaire bu am même taille ak moom même poids. non masul masul masul am masul am moo tax tey jii ñu gën a fonk combat bi mais ñun loolu du dara du dara si ñun. Hmm, du dara naka nga naka nga waaj combat bi kuy bëre koo xamante ne moo la loo moo la laal. ñun moom ay nit lañ yoo xam ne du adversaire moo ñuy jaaxal parce que bi ñuy dugg làmba làmb gis nañ adver maanaam làmb catégorie bu nekk moo ngi ci catégorie bu poids bu nekk moo ci et taxul aussi ñun ñu jéem a wàññi poids wala ñu jéem a yokk poids ñun bu ñu amee combat dañu entre régulièrement l' essentiel bon nañu yóbbu lu dal suñu xel mooy doole condition bu wér waaw. nga ba sentir ni épreuve force bu amee mun la yóbbul dara. non bu arbitre ñu xam <laughs> bu arbitre dinañ xam. Euh. côté bëri tamit am na ñuy minimiser technique am ndax yow da ngaa bokk ci ñooñu parce que gis nañ mu daan ay champion. maa daan Sakka Dior rek yaakaar naa ne doy na sëkk ci. moom moom champion la champion la eh, dañ ko koy nangul waaw mais Jordan dafa mënul ñàkk suñu suñu suñu carrière rek eh, te incha allah dañ koy jël daan ko champion la mën na bëre. Eh, te dina loolu mënul ñàkk ji combat bi combat bi dina am bëre dina am xeex dina am. nag dañ da ngay minimiser technique am. non non am na wax sax bu mu wax ni wax nga ko. ko wax ay waxam yi mu wax ak yooyu noonu quoi ñun làmb lañ nekk man képp ku ma xam. kon yow sikki sàkk woo daal sa adversaire ni vrai vrai vrai technicien. la eh, champion mais bëri moo xam nga kenn mënu ko jeexal da nga mën lii tëlale la ah, waaw mais champion la moom waaw. Eh. xeex bi nag am na ñoo xamante ne moom nee nañ yaa ci ëpp sens bu ngeen xeexee dóor mu wàcc mën na cee am. lépp. mais dóor ponkal na jotaan mu daanu est-ce que dina moom lu nekk mën na si nekk. mais xam naa ne man moom lépp laay def si incha allah. Eh. da xeex si. bëre dóor <laughs> dóor kañ bu si dàq dara. bari dóor lañ wax lépp man naa ma. Faram Touré jël naa ko nee sa gauche bi moom le le quinze dana ubbeeku. non. <laughs> jarul wax ba <laughs> li ma gën a neex laa am. xanaa xam ko combat yi ma doon bëreel yëpp dama doon kii rek. dama doon bëree dama doon raay nii rek mais tey li ma gën a gën neex ci làmb laa am. muy lan. koo xam ne moo la loo la lat. ñun ne aussi moo la ëpp doole loolu dafa may neex si combat loolu sax parce que man combat yi ma doon bëree yëpp dama doon nekk favori si lépp waaw. da nga bëgg wane sa bopp daal. damay wane sama bopp incha allah. côté mobilisation naka nga nar a parce que ku a xam na ni bee moom yomb na trop bee 1000 francs la vert bi ak jaune bi yëpp naka nga nar a ñëwee dangeen nan la nan lañ la nar ëmbee parce que gis nañ benn équipe nawetaan sax bu am foofu dangay ngay takk rëpp ci seeni i mbir waaw nan lañ ñoom nan lañ nar a ñëwee. non wax dëgg yàlla waa Tëngéej ñoom ñoo ngi waaj bu baax a baax a baax a baax a baax doomu daangu moom doomu daangu Tëngéej la doomu dàngu lébu yëpp la xam nga mais spécialement xam nga fi ma fi ma dëkk boo fa ñëwee daal di nga xam ne gars yi ñu ngi waaj ñu ngi waaj lépp te ñun lépp lu ñu mën a def pour mobilisation bi maanaam ñu ëppale ci dañ koy def te incha allah dinañ taaral bés bi bu ñëwee. kontaan naa ci yow looy wax groupe Ndiaye Pro. <laughs> waa Kali nekk yi maa ngi leen di siyaar ñoom ñëpp bu baax a baax a baax a baax Ndiaye ñëwagul nag loxo bi ñëwagul. Ah. Ndiaye production nañ ñëw. Ndiaye mi ngi bëgg a yéex nag. ah Ndiaye tamit fi mu nekk nii son. combat un an am di Moustapha combat un an fi mu nekk nii li wul li di wax yorutuma dërëb. <laughs> bu jeexal teg gars yi dañ ñëw ah waaw combat bi aussi xam nga ñu ngi oowaat Tëngéej yëpp ñu ñëw jàppati vraiment combat bu metti la nag. combat bu metti la lool lool lool lool lool suñu côté parce que duñu mën a wax lépp sax mais xam nañ ne métti na lool lool lool mais lu métti moom góor lay arrivé quoi te incha allah ñun métti sax jig nañu waaw yàlla nañu yàlla may ndam rek incha allah. Diop maa ngi bu baax a baax di la ziar. nekk naka wàccee ba. waaw nañ yàgg na sant yàlla bu baax a baax. mu ngi ne de noo ko gisee ñàkk. man xooluma ko sax nag dëgg yàlla. mu ñëw ba léegi maa ngi toog ah, naa ko nii mais xooluma ko nag. dama la fekk arène nationale ngay renouveler sa licence. nga amoon lu la metti ci ay kàddoom loolu yëpp nga ne woon danga koy waajaale waajaale waaji nga ba mu des une semaine yan résultat la. non man bu ma ko waxee laaj pare de wax na waxam boobu laaj pare vraiment fi mu toll nii maa ngi waajal combat bi comme ni ma ko bëgg a waajalee sama conscience tranquille maa ngi koy def maa ngi waajal bu baax a baax waaw maa ngi waajal bu baax. Mm. nga bëri mbër boo xamante ne nee nañ su ngeen xeexee moom moo la ci ëpp sens côté xeex fan nga ci toll. loolu moom waxu nit ñi la rek. lamb moom yàgg nañu fay dégg loolu affaire moom nekkuñu si ay gan léegi waaw ñu koy gérer incha allah bu ñu xeexee wala ñu bëri nit ñi dañ comprendre pour man li si des bëreetul jarul bu bëri non jaratu ko dañ concentré affaire rek. waaw taxaw léegi dafa mel ni nga xeeb adversaire bi la donc ko ëpp doole donc ko dàq bëre donc man lan nga jàpp ba tabax nga war a xeeb sa adversaire. no xeebu ma ko ëpp ma ko doole loolu yëpp non man daal lamb laa ko jàppee daal pour man ëpp ma ko doole pour man xeebu ma ko. làmb la quoi xam nga làmb moom bu taxawee rek taxaw na waaw yàgg naa bëre bon bu ñu tollee fii moom dama yaakaar ne xeebaate amu fi waaw yaakaar naa fi ñu toll si làmb dañoo war a wane suñu bopp kon kooku yaakaar naa tal na leen lu xeebaat peut-être man la ñuy xeeb mais man xeebaat xeebuma kenn. nee na day kontaan trop ci bëre mbër boo xamante ne moo ko ëpp moo ko moo ko sut ñu bari jàpp ne nag yow yaa ko ëpp kontaan ci bëre. non ëpp ma ko bu ma catu bu ma làmb ëpp ma ko champion la ponkal la comme ñëpp làmb lu am mooy ku nekk na nga gérer sa bopp gérer xam nga loolu moo fi des mais ay ëpp moom ak ay yooyu moom pour man mooy loolu. en tout cas daal bu ñu sumee ko ba taxaw bu ñu dalantee maa ñu mbëkkante mbaa ñu dóorante affaire yi foofu la nekk ko hmm. kontaan naa ci waaw waa Pikine maa ngi maa ngi leen di nuyu bu baax nuyu waa taan yëpp waa Diamniadio waa Colobane waa Seras nuyu sama frère yi ma àndal sama grand waali waa di waaj open presse bi nag xam nga le mai. ce sama waxtaan ngeen teew waaw xam nga yaa ma gën a xam mooy loolu gaa yëpp te. waaw yow ca waxal bi ngay daw te moom laa lay daane incha allah Mama Lamine le 22 mai. yow Garga bis boo ma caxabalee boobu ngay ñàkk say tànk dootoo bëri. en direct seen affiche point com di wax fan yëpp nan dem si affiche point com jënd ko ti seetaan nga foofu. seen affiche point com lay daw na